Sall bu bokk ak Mountaga si parti jël ko tabb ko mu nekk port moom mu jiite parti bi mhm. ak un euh, euh, Waly Bodian bi mhm. bokk Pastef ñu mhm. tabb ko def ko port tout en sachant que ña ko fa yóbbu ñoo ñoom ñoo bokk benn philosophie benn gëm-gëm ci parti bi tudd Pastef sooy génnee différence bi lan la ci dépolitisation très bien booy génnee différence bi d'abord projet la euh, bu boole ñaari formation politique APR du Pastef ça c'est une première chose président Macky Sall du président Diomaye et quand on parle de dépolitisation c'est-à-dire que euh, monsieur Sylla qui euh, à quelques jours de son installation au port te dit que emploi euh, recruté naa xaw ñaata ce qui était fallacieux mais ce était aussi une absurdité je viens de te souligner le cas de la poste voilà ces pratiques à bannir voilà ces pratiques yi nga xamante ne ñoom ñoo jël en otage euh, ce pays là voilà ces pratiques que euh, Pastef depuis 2014 di lutter contre euh, ça ce contre quoi on s'est levé ce n'est pas que ni euh, Madani xawma kan euh, affaire la bokk du loolu mooy problème bi. Hmm. déedéet pratiques yi pratiques yi la. mooy am nañu mooy xam nga ñun dañoo am ak ñoom convention fii la ñu xëy. Hmm. laal li ngay wax nii gestion beeg. tudd ko rek ñu xëy dagg suñu convention. parce que convention bi moom daf ko defoon pour nga koy taggal. te te te ci sa liggéey nga nekk. waaw c'est-à-dire tey jii nii. yow nga am convention moo tax nouveau naa xoolaat loolu ndax ci dëgg la. non impérativement parce que injustice la après da koy réparer rek. ah ah, ah, ah. bien sûr il ne va pas perpétrer une injustice. Ah. mais tey jii nii yow nga am convention parce que euh, euh, structure bi journaliste ba fa nekk. wax na la lu la arrangé wul nga ne da nga ne fii lañ toog matinal bi xam nga ak ñoom euh, Ngone Saliou ak ñoom Nabi Nabou Koor ak yooyu ñu ñëw presse bi xëyee ko mhm. wax ci Hmm? ñu commentaire ñaawlu la fa am ak nangam ñu xëy rek ñu bind administration bi. waaw dama xëy rek gars yi na ma ah. conséquence suñu commentaire rek yooyu man leen ndokk. waaw kenn du ñu teree wax lu ñu war a wax. ndokk parce que xam nga sa rôle moom moo xamul liggéeyam. ah moom moo xamul la ko sa teg. mais justement loolu la sénégalais sanctionné genre pratique yooyu noonu. Hmm. genre pratique yooyu noonu bu jeex je suis que euh, le nouveau DG euh, Wali va réparer cette injustice ah. que tu as subie impérativement impérativement looloo leen fi ah, andi bu ko gis dañu euh, ñu amel foofu li ñu waroon jox ñun li ñu waroon yëpp def nañ ko dinañ ci xar suñu waaw lu ci ëpp ci li ñu waroon def Wali Wali <laughs> da nga fàtte ci condition Wali jiwi <laughs> waaw jiwi waali waali dellool ko waation bi <laughs> te lu ne am kon yooyu pratique ah. moom mooy différence bi tu me demandes euh, kooku noonu APR la bokk kii Pastef la bokk où est la différence. la différence déjà c'est entre Pastef ak euh, euh, APR. comme yàlla ak yàlli comme Angleterre ak pomme de terre waaw ku nekk daf kële dafa nekk ci extrême du mal def ci réew bi bon bu ne coxor gu ne yëfi don yu nekk def nañ ko ci réew bi ñoom APR. Hmm. waaye yow kii teg la projet sénégal yi wóoru projet bi tab ko. toogagul sax gars bëgg a taxaw naan wooy nangam nangam euh, ñooñu noonu di wax naan projet amul woon ak nangam danoo yàqamtee xeex. dañ def hmm. nank président Diomaye il n'a pas pris euh, de, de temps pour s'attaquer au problème de Sénégalais il en connaît xam na li xew il connaît les enjeux te xam na fu mu jëm. Hmm. c'est le fruit de profondes réflexions. Euh, ay doomi Sénégal boole ko tëgg teg projet xam nañ fu nu jëm nanu def nank nanu tey mais nanu ànd ak dal mais ànd ak patience le président Diomaye va mener le Sénégal au bon port ci loolu it wax na rapport yi na génn mhm, dafa war a génn kay ku mel ni Serigne Bassirou Gueye moom exécuté wu na bon j'ai lu oui c'est de la littérature euh, vraiment enquête littéraire quoi littéraire oui. Kër de la mais tu as vu le rapport en question. atelier fii séminaire fee. non boo loolu c'est lii moom. le rapport de l'OFNAC là que j'ai lu. Hmm. loolu littérature la quoi loolu du enquête. oui daan nañ xam yu gë yu gën a yu gën a xóot yi. avec Nafi Ngom notamment euh, on a on a on a on a eu plus de ah, matière. quand même quand même. mais là c'est euh, de la littérature pure et simple. donc kon lañ lañ ñu lañ ñu wax noonu foofu mm. euh, voilà mais. Euh, war naa gën a xóot loolu. waay waay Serigne Bassirou sax euh, bon garaawul quoi moom moo a bàyyi xam ne yaa ba gën a xam da nga fàtte affaire suite wote. Ah, ak photo yañ ca yokkoon ak yooyu. bul ah. fàtte yooyu tamit fàtte xaju fi donc xamante nañ quoi xamante nañ suñu biir. c'est fii Sénégal la nekk sa gaa yëpp dem na. loo jàpp dafay def kii. non mais lii ah, ah. du du rapport waaye lii du enquête euh, léegi y a d'autres corps de contrôle qui sont justement yi ñuy xaar lu waral yii xaay bi non cour des comptes non non déclassification procédure là aussi ah waaw ah, oui oui oui et euh, depuis deux mille dix neuf la ñu wax ba tey donc Cour des comptes il il te il produit c'est euh, dernier bi moom mooy. Euh, Covid Covid bien avant ça aussi. am na na yoo xamante ne publié wul. Euh, te am na yu fajaar yooyu noonu yëpp. dinañ ko teg sur la table gis nga saa waay réew bi moom fa ko président Diomaye jëlee. Hmm. dinañu ko xam ci saytu état des lieux. parce que nag bu ñu ko xamul. Hmm. moom moo tax yenn wax yii nii jëmale ci président Diomaye. xamuñu fi mu jëlee réew mi moo tax. wuy Pa Ousmane. Macky Sall bu doon Sénégal entreprise la fayit la ko joxe joomaay. fayit fayit. le Sénégal pour utiliser un terme une expression ju juridique le Sénégal est en cessation de paiement. loolu moom mooy. Euh, crise bu profonde loolu euh, juridiquement bu ñu la koy définir mooy quand l'actif disponible ne peut pas faire face au passif exigible. Le passif, les gens parlent d'une de, de dette, comme extérieure. 18 000 milliards. Vous vous rendez Est-ce que les caisses de l'État am nañ loolu. je kon donc l'actif disponible ne peut pas faire face au passif exigible. le Sénégal est en de paiement. président Macky situation bu catastrophique boobu la bàyyi euh, kii. nu bàyyi ko mu dem nii. c'est pourquoi ne que moom euh, warul wa demee ci demam ak ñàkk a demam mais situation bi mu bàyyi réew mi la sénégalais yi war a xam bu metti c'est-à-dire le président Diomaye ñuy tetee euh, seen génie politique il pourrait passer ci kii bi que à dem désamorcer des bomb bomb sur bombe scandale sur scandale pasar pasare alalu réew mi au détriment du contribuable sénégalais mais ku jëlee Sénégal ci li mu nekk noonu te attention bàyyeegul la. Hmm. non président Macky Sall. parce que ba euh, tey xamuñu ñaat la bàyyi ci kees gi xamoon nañ ko en 2012. waay waaye dinaa la dinaa la c'est une situation financière catastrophique catastrophique au lieu sax mu dem toog mais ba léegi mu ngi woo ay ñooñam ah. waaw justement mu ngi leen di woo. Euh, qu'est-ce qu'il veut finalement revenir hmm. ah apparemment il n'a pas encore dit son dernier mot. woote bi warut ah, non dafay bàyyi njabootam. mais mais te du ñoom ñoo doon reproché au président Wade après sa chute euh, muy émissé wu ci ah. affaire Sénégal hmm. léegi moom qu'est-ce qu'il est en de faire. c'est quoi le but wax ak njabootam pour. ah ñoo xam ne ne sont pas assez responsables. député bi ñu a ils ne peuvent waxal seen bopp ñoom. Hmm. wala sa euh, ce sont juste c'est toujours des bambins au biberon. quand mooy seen leader peut-être lim nekk seen leader la xëy. ñu daje moom it mu joxe ay orientation waaw c'est pourquoi euh, les gens essaient d'insinuer une motion de censure loolu la ah c'est peine perdue nañu nañu nañu nañu nañu xaar mais en tout état de cause mm. ce dont j'en suis sûr hmm. moom mooy situation bi mu bàyyi réew bi catastrophique na te ba léegi bàyyeegul ci essayer de mettre des bâtons dans les roues l'avenir nous édifiera oui l'avenir va nous édifier sur Macky Sall mi ñu jàpp nii bi muy dem diggante mag Sonko Diomaye neex na lool. ndax waaw non non doucement le président Diomaye euh, le président Macky euh, buy dem passation de service euh, mu tàmbali ci liggéeyam xool état des lieux ce n'est pas à Diomaye d'établir la culpabilité de qui que ce soit. Ah. le président Diomaye il a du pain sur la planche c'est-à-dire s'attaquer au problème du Sénégal et des Sénégalais. donc ce n'est pas à lui euh, de définir la culpabilité ak nangam loolu c'est le travail de la justice des corps de contrôle donc kon il n'a aucune raison que Macky Sall moom moo amoon nekk président di am diggante bu ñagas ak ñeneen Diomaye nekkul ci loolu donc kon le fait de dire que ni jigganteem ak ñoom neexoon na lool musul naqari ci jomaay ak responsabilité yi mu yor en tant que président de la république moom la perception qu'il a du président de la république c'était d'entrer dans des dans des magouilles enfantins bi ko yóbbu woon euh, ci li mu doon doxal digganteem ak euh, Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen mais euh, finalement il a compris que c'est lui qui avait tort il compris que ni euh, moom moo nekkoon ci ay trucs passons sur ça mais la réalité c'est que lii may wax ni. ce n'est pas l'argent de Diomaye. Ouais. ce n'est pas l'argent de Ousmane Sonko. ce n'est pas l'argent de Macky Sall c'est de notre argent dont il le contribuable sénégalais donc diggante bu neexee ak keneen ak keneen loolu ce n'est pas le problème. mais il a il a laissé jël engagement ne dana wàññi dund bi. mën na ko. malgré situation catastrophique bi ñuy wax nii mën na ko non non non doucement euh, situation bu.